أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم suñu borom mu ne iza samaan fatarat fàttalikul ba asamaan di xotteeku di faq wa iza alkawaakibu intasarat biddiw ya doon lu tasaaroo wa iza albihaaru fujjirat géej ya doon loo xam ne lu ñu bewal lañu génn leen wa iza alqubuuru busirat bàmmeel ya doon loo xam ne yu ñu jàllar bi lañu jeqi leen alimat nafsum ma qaddamat wa axarat keroog la bakkan di xam lam jiitaloon ak lam yeexee yaa ayuha al insaan ma yow doomu aadama maa garraka bi rabbika alkarim malu la wor ci sa borom bu tedd bi allazi xalaqaka fa sawaaka fa adalak moom mi la bind doon koo xam ne nii moo la yemal daa di sawaaka mooy def la nga doon koo xam nit ku taxaw nga ba pare fa adalaka mu daa di lay yemele fi ay surati ma shaa rakkabak ci bépp melokaan ba ko soob moom la la teg kalla bal tukazzibuuna bi diin waaye yéen day yéen a ngi weddi bisu fay ba wa inna alaykum la xaafizin te nekk na ci yéen ay wattukat kiraaman kaatibin ñoo xam ne ñu tedd lañu di aji bind yaalamuuna ma tafaluun ñoom day xam nañu la nga xam ne yéen a ngi koy def inna al abraara la fi naim nit ñu baax ne day ñu ngi ci xéewal wa inna al fujjaara la fi jahim doonte ne ni ña nga xamee ni ni ñooy say say sa ñoom ñi ngi ci jahim yaslawnaha yawma ddin sawara jahim boobu nag dañ leen ca tabbal ñu dañ ca tabbi bi su pénc wa ma hum anha bi ghaibin te ñoom day duñu nekk di ko faddu ay duñ nekk di ca ñàkk teew wa ma adraka ma yawmu diin ma lu lay xamal bi su fay ba suma ma adraka ma yawmu diin gannaaw ba lu lay xamal lii di bi su fay ba ma yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a bis bi nga xam ni benn bakkan du moomal moromu bakkanam dara wala amru yawma idhin lillah mbir yeel yépp bi su keroog day ñeel yàlla mbokk suratul infitar sorewul ak suratul kubira borom bi day wax ni asamaan bis dana ñëw mu daa di xar daa di faq daa di jóoru mi ngi noonu la ca nekkoon ci biddiw yépp tasaaroo mu lay wan ne biddiw yi dañoo nosi dañoo rafet ni leen yàlla bindee bu dee ni scientifique yi wax nga xam ne ñoom ñoo leen di mën a gën a jege ak seen observatoire yi amul lu gën a nosé lu gën a organisé li nga xam ne mooy biddiw yi li ñuy daw ci ay xel jafe na doomu aadama mën ko comprendre dañuy daw des millions de kilomètres ca benn du laal sa morom ñu nekk di milliards ci ni leen yàlla organisé amma nag bu yowmal qiyaama amee catastrophe générale ñëpp ay jaxasoo mi ngi noonu li nga xam ne mooy kaw suuf soo xoolee trois quarts yëpp ndox la suñu borom wërale ci ay océan océan yooyu bu nekk yàlla moo ko tënk léegi nag yowmal qiyaama la leen yàlla jox ndigal seen tënk yépp tekkee ko ñu daal di génn daal di dem xam naa keroog waa Dakar moom xamu fu ñu jëm waaw boo xoolee droite géej gauche géej gis ngeen su ko defee kon géej yépp jaxasoo te loolu mbokk nekk lu rëy suñu borom won nañ ci rek géej gu mu jox ndigal mu génn mooy tsunami bi amoon en 2004 su ma juumul ah naam 2000 2004 ñi yoon mi nga noonu amoon Indonésie ak li ko wër ci quelques minutes rek la yàlla jox ordre géej gi mu génne ay vaggam plus de 300 000 personnes rey na leen gis ngeen ak des dégâts matériels yoo xam ne kenn mënu koo wax amma yomal qiyaama géej yépp ay àndandoo roofaloo fu jirat keroog la ñuy génne li nekkoon ci bàmmeel yi lépp lu ñu suuloon ci nit ci ay bàyyuma lépp lépp lépp ay ànd génnandoo suñu borom génne leen ñu taxaw keroog la doomu aadama di xam lam jiital ak lam yeexe am borom xam-xam yu ko firee lam jiital mooy lam def lam yeexe mooy lam waroon a def te def ko am ñoo xam ne ni dañ ko dañ ko firee lam jiital mooy ay lam def ci lu baax ak lu bon lam yeexe mooy lam bàyyi gannaaw ci lu baax ak lu bon te mooy képp ku jàngale woon lu baax wala nga bàyyi fi ay sarax yu baax même boo dee loolu da lay fekk si naka noonu it képp ku fi bàyyi lu bon lu mbon loolee nga jàngal ko ay nit wala jëf ju bon ñu koy jëfe sa gannaaw lépp da lay fekk si amma nag bu yowmal qiyaama amee nag la nga defoon avant ngay dee ak li ñoo fekk sa gannaaw gannaaw ba nga deeyee lépp daal di teew sa kanam mi ngi noonu nga nga koy xam borom bi nag mu ne doomu aadama ku la wor ci sa borom bu tedd bi ba ngay jaamu keneen ku dul moom ma gharraka bi rabbikal karim mi ngi noonu te mooy bokk doomu aadama yi yàlla da leen bind rafetal seen bind moom leen taxawu leen waaye warkat yi ñëw ba nga xamee ne moo ci jiitu mooy sheytaan ak la nga xam ne mooy taar bi yàlla wàcce ci àdduna moo tax julit yi moom mu ne fala taxurannakum alxayaatu dunya wala yaxurannakum billahi alxarur ay waay jurit ñi fexe leen ba taaru adduna bi bu mu leen wor mu gaa yi taaru adduna fi muy jógee bu dee ne àllaaxira bu ñu demee montagne yi gën a dëgër ci kaw suuf borom bi nee na poussière lay doon keroog gi ana immeuble ya ana quatre-quatre ya ana compte bancaire ya ana tool ya kon lii bu mu leen nax seytaane it mi ngi nekk di jaxase am ay ndawam shayatinul ins wal jinn ñu yàq pas-pas doomu aadama yi di leen woo ci ay bakkaar loolee da ngay gis lu bari ci doomu aadama yi ñooñu nax nañ leen ba ñu fàtte seen borom complètement jaamootuñ ko buñ koy jaamut dañ koy bokkaale ca borom boobu de mooy ku tedd amul lum defalul doomu aadama ci lu koy jëriñ aataakum min kulli ma saaltumuhu ca mooy ki nga xam ne it heure boo tubee mu baal la borom boobu nga xam ne moo la bind moo la amal ci kattana moo bind lépp waaye moo la def sawaaka def la ngay góor wala jigéen def la nit mi ngi noonu bu ko nekkoon def la bàyyi ma gannaaw ba adalak yemele la say loxo yaa ngi nii say tànk ngi nii nga doon ko équilibré mi ngi noonu loolee di xéewal gu rëy gu la yàlla subhanahu wa taala defal moo tànn melokaan ba ko neex melal la ko yàlla moo tànn nga nekk góor gannaaw ba yàlla tànn melal la ni nga mel ca mbokk ñaari nit yu mas a jaar ci kaw suuf amul ñaari nit ma jaar ci kaw su amul waatal ci yàlla waaye mooy ñu nuroo yaatal ci yàlla ni bilal càm mi ku mel na ma musul am dootul am ba ilaa yumi din ku mel na ma musul am dootul am ba ilaa yumi din mi ngi noonu dañuy xool suñu doom yi def génie en herbe léeg-léeg dañ leen di woon benn genn wàllu kanam waxuma kanam gi de genn wàllu kanam rek xale yi ne kii dëggool am déet léegi la ñu woon leen benn kaw ñu ne leen kii Napoléon la de la part léegi la ñu woon leen nanga ñu ne kii Lat Joor la lu tax loolu mooy suñu borom yàlla musul bind ñaari nit ñoo xam ne benn lañu ay cheikh lu ñu nuroo nuroo dañoo taxawul rek waaye bu ñu taxawee rek nga xam ne du ñu benn kon yàlla moo la tànn pour wane na yow yàlla sàgganewu la yàlla tànn na la jox la melokaan ba ko neex mi ngi noonu ñii rëy lool di ñii di mesure deux mètres ñii di mesure un mètre cinquante ñii xees ñii ñuul ñii nangam looloo tax mu bokk ci lu grave mooy ñi changé melokaanu yàlla te loolu ñi ci yàlla gën a nattoo mooy suñu jigéen yàlla def la nga ñuul kukk nga ne déedéet man damaa war a xees suñu karaw yi ñu yàlla yemali ni nga ne déedéet karaw gi daa war a gudd sa tuñ yeeg sa bëñ yeeg yépp yonente bi alayhi salaam boole ko yàlla rëbb na kay yokk karawam ka ka kay yokkal yàlla rëbb na kay xar ay bëñam yàlla rëbb na kay jamutuñ yàlla rëbb na nangam nangam ca mooy yu xayiruna xalqallah seytaane bokk na lu muy xeetal doomu aadama fala amurannahum fala yuxayiranna xalqa allah yàlla ni ngi leen bindee danaa leen topp bañ soppi ko gis ngeen yàlla moo la tànnal melokaan teg la ca ci kattanam waaye teewul doomu aadama ñi ngi weddi bis penc waaw yàlla mi la bindoon ci njëlbeen lu tax mënu la bindaat lu tax mënu la bindaat wax naa leen ko fi ay yoon ñaari philosophe yu doon wax benn julit ak benn philosophe athée julit bi lu mu ko wax la lu mu ko laaj mu ne ko mais lii par hasard la àdduna par hasard lépp mu ne ko par hasard mu ne ko waa mais bu dee logique gu li am ci àdduna yëpp par hasard la est ce que àllaaxira mun tam par hasard waa ji na jàjj di ko xool boo reconnaître ne lii mën naam war nga mën a reconnaître ne par hasard àllaaxira mën naam ala kulli xaal kon moo tax suñu borom toujours ngir fàttali ñu weddi àllaaxira da leen di fàttali seen cosaan yàlla moo leen bind mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne yéen a ngi weddi bi su fay ba te yéen mbokk àllaaxira yàlla nga ko tudde bi su fay tuddewoo ko bi su may tuddewoo ko bi su sarax tuddewoo ko bi su leb amul may amul sarax amul leb mi ngi noonu kenn du dimbali kenn ci dara loo fa am mooy la nga liggéeyoon fii jeex na ndax bis la boo xamee ni nii ku nekk la nga am da la doyul la nga am nag bu la doyul sëñ bi loo ci sédd kenn dégg naa fii alpulaar yi am na benn lépp bu ñuy lépp ñu ne ki ki ki nga xam ne cereem day jooy pour siim cereem kenn du ko ñaanum ñeex boo ko ñaani mën a jooyale it waaw ca mooy ku nekk la nga am doyu la moo tax bi su fay la ku nekk ñun war a bàyyi xel loo fa yóbbu buñ lay fay keroog lan lay doon borom bi nag subhanahu wa taala mu ne xam leen ne am na ci yéen ay wattukat la xaafisin ñoo xam ni duñu juum duñu saggan duñu bàyyi dara ay xaafisin lañu mii malaaka yooyu nga xam ni ñooy enregistré mboolem lu doomu aadama ji def suñu borom tagg leen ne ñu tedd lañu yàlla moo leen teral ñu tedd lañu doon ay bindkat dara du leen rëcc ca la nga xamee ne yéen a ngi koy jëf yépp xam nañ ko loolee mbokk ñu war koo gëm ni ko yonent bi waxee yonent bi alayhi salaam nee na chaque jour quatre la ñuy doon ñaar ñooy ñëw fajar ànd di la enregistré ba takkusaan yàlla wàcce yeneen ñaar gannaaw ba ba takkusaan passé ñi fi yendu woon yéeg ñii ñëw ci ngoon gi fanaan noonu la ñu nekk ak yow donte ne doo leen gis waaye nag réalité la tey jii benn waaye day yor portable am nga koy woo muy wax wax bi leerul mu ne noo bal mi fi amul réseau xaaral ma génn fi amul réseau nga génn wax ji leer gars yi réseau bi tax ngay wax ak ci ne Amérique anu réseau bi ndax gis nga ko c'est un constat boo xam ne yaa ngi koy constaté ci portable bi mais mënuloo ko gis xeeñu la amul benn loo ko mën a xamee malaaka yëpp noonu lañ mel ñi ngi ànd ak yow foo mën a toll lépp li ngay jëf lépp li ngay wax xam nañu ko dara du ko rëcc ci la nga xamee ni nii mooy say jëf mooy say wax looloo tax ba war naa bokk ci ñaani jullit ngay ñaan yàlla yàlla nag ma dimbali may bañ a fàtte say malaaka ngi noonu am na ñaan bu rat ci sunna allahuma a inni ala zikrika wa ala shukrika wa ala husni ibadatik yàlla yàlla nag ma dimbale jàppale ma ba ma lay fàttaliku di la sant di la jaamu jaamu gu sell waaye boo la ci it yàlla dimbali ma ba duma fàtte say malaaka tey jii ab sëriñ boo dee da nga ko rus wala kilifa gu màgg sa famille am na yu bëri bu dee taxaw na ñemewoo wax lu ñaaw ñemewoo jëf lu ñaaw ci kanamam amma ñooñu li ñuy tedd tedd malaaka yi borom bi moo leen gën a tedd parce que borom bi moo leen tagg ne ñoom kiraaman kaatibin la ñu tedd lañu mi ngi noonu ba pare li nga ñu def yépp xam nañ ko te tamit nga bàyyi xel yow tamit heure boo dajeeg ay nit masalan tey daje nga ak lu mat ñetti nit xam ne ni nga daje nga ak ñetti nit ak juróom benn malaaka daje nga ak fukki nit ci réunion daje nga ak fukki nit ak ñaar fukki malaaka lu mbooloo ma gën a bëri multiplier ko par trois cent lañu trois cent ni ñu koy waxee deux cent malaaka ñu nga fa wër leen su ko defee loolu nga koy bàyyi xel ci jëflante boobee dana tax ba doomu aadama di sellal mbiram te xam ne malaaka yooyu bu dee réunion ba bu dee congrès ba bu dee déyoo ba bu dee lu mu mën a doon ñoom ñi ngi ànd ak yéen di enregistré dara rëccu leen te loolu mi ngi lay xaar yawmal qiyaama borom boobu nag subhanahu wa taala ne gaa yu baax yi day ñi ngi ci xéewal ba ko baax mooy lan Sénégal moom ba mbaax gi moom yomb na del maye xaalis rek ko maye xaalis baax na borom bi mu ne déedéet laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birr man amana billah واليوم الآخر والكتاب والنبي والنبي إلى آخره وآتى المال إلى آخره والصابرين إلى آخره تموي مكم باخ بلغا باخ داغي ام ngëm gu sel ci gëmam baaxul baaxul mbokk yéefar du baax bala ngaa baax da ngay gëm yàlla gannaaw ba it la la yàlla wërsëgal nga cay jël di joxe ci yàlla tax muñ natt yi yàlla teg ci yow muñ jaamu yàlla yi mi ngi noonu heure boo xamee ne nii tey même bu jihaat amoon nga muñ indal baas lii mbokk da ngay xam ne borom bi nee na ñu mel nii ñoo ñu dëggu te ñii ñoo ñu ragal yàlla ñooñu nag ñu ne ñi borom bi nee na ñu ngi ci naayim naayim boobu ku mel ni yenn borom xam-xam bi dañ naan yàlla am na ajjanay adduna ku ci duggul doo dugg ajjanay alaxira mbokk lan mooy ajjanay adduna mooy xol bu dal xol bu dal yàlla may la tawfiq suñu borom mu ne man amila salihin min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan hayatan tayyiba mooy dund gu tey dund gu dal même bu dee yaa ngi néegu ñax yaa ngi lekk mbiskit yàlla day féexal sa xol nga gëm sa borom yéeg ay xéewalam ci yow xëy suba rek jóg taxaw fudd alhamdulillah nga yéeg bàyyi xel ñaata ci ay doomu aadama tey jii ñoo yor alal judul jeex te mënuñoo jóg taxaw nga bëgg a lekk lekk alhamdulillah njaboot gaa ngi ni dara dalu leen alhamdulillah nga yëg xéewal yàlla da ngay nekk ci ci ci ci aljanna boo xamee ne nii am na lu ñu ciy nettali wallahu subhanahu wa taala alam ci naka la demee ñu ne benn buur dafa laaj ñi muy toogal ne leen waaw waaye yéen dëkk bi ku fi gën a neex dund ñun ko ah buur ñun jàppoon nañ ne yow la mu ne man da ngeen xamul rek yaa ngi dégg na xamul rek am benn waay nu ko ah man day góor gi càmm gi ma dëkkal yaakaar naa dundam neex na de ah mu buur na ko nañ dem guddi la woon nee nañ biñ ñëwee ci kër gi fekk góor gi di jooy léegi ñu toog buur bi na ko waaw man li muy tax a jóg moom bala ma koo laaj damay laaj ñëw dañu ñëw yaa ngi fekk yaa ngi jooy looy jooy mu ne ah man day buur damaa toog xalaat fi mu ne nii maa ngi nii njaboot gi yépp ngi tëdd dara dalu leen añ nañu reer nañu ca añub suba mi ngi sama poos ma xalaat rek xiiwal gi ma yàlla defal nu ma koy fay xawma ko ma ma tax di jooy buur na jóg leen ñu dem yaa ngi dégg kii neex nag dund yaa ngi dégg te loolu mooy alxina alqana doylu mi ngi noonu waaye képp koo gis di ko ñëy ngir alalam ji bari ja ngir siyaw ñu bëjje da nga xamul rek da nga xamul rek am na euh, benn woykat bu siiw bu fi nekkoon américain xaw ma Lewis xaw ma nan ah Lewis Euh, non non pas Steven da am na ko jiitu kooku kooku dafa mujj xaru ki ma wax jigéen la dafa mujj xaru xam naa inspecteur Sarr mi ci gannaaw moom xam na ko dafa mujj xaru ndax ah ah ah xam nga li xam waaw xëy na sori na ala kulli xaal ku siiw la ñëpp ñeewoon ko ci àdduna bi dafa dafa mujj xaru parce que moo xam ne ndekete àdduna bi moom ab objet rek lañ ko jàppe ci ñëpp ko doon ñii jigéen ñëpp bëggoon a mel na moom kii di Madonna nga xam ne daanaka mooy artiste bi gën a siiw ci àdduna Madonna Madonna boobu da ngay gis na am ne benn lenn lu ma liir ci moom dañ ko titré mooy histoire bi nga xam ne laal biddiw yi gën a yomb yegg ci moom waaye gaa yi ko wër dañ lay wax des fois day toog ay guddi di jooy ak dund goo xam ne rek comme marionnette lu ne dañ koy calculer toppatoo ko loolu moo koy déranger ca mbokk muy wone ne ndekete yoote bànneexu dund nekkul ci alal nekkul ci siiw nekkul ci jiite armée nekkul ci président de la république yéen ñëpp ndaw ñi jàng xam ne ñu ñu te l'épée de Damoclès lan mooy l'épée de Damoclès ñu ne Damoclès benn waay dafa am day nekk xaritu buur bi mu ñëw na ko buur ah waaye buur buur yéen seen dund neex na de mu ne ko ah loolu nga foog mu ne ko waaw mu ne ko waaw baax na buur bi daal di ko invité benn réception bi ñëw ci réception bi mu teg ko ci benn fauteuil am benn jaasi buy lang ci kawam nii jaasi bi buum gu sew moo ko téye amakale daal bu dóoree ci mbir yi waaye xel mi moom xel mi dalul ndax jaasi ji moom xam ne lii moom pour mu dagg dafay kii lool biñ nekk ci réception ba pare dem mu ne waa buur réception bi neex waaye man jaasi ji ma tiim moom waaye yàq na lépp mu ne ko nag loolu mooy nguur yaa ngi dégg nguur a ngoog yaa ngi dégg ca mooy da ngay nekk ci lu nekk mais sa xel du dal gis ngeen su ko defee kon mbokk julit yéen ndaw wala ku mën a doon soo bëggee dund naim dund xel mu dal jubalul ak sa borom jaamul yàlla maytu lépp bakkaar lii moo lay def naim amma al fujjar saay saay si gëmul yàlla toppul yàlla yàq ci yañ nekk pale yañ nekk avion de yi ñi nekk lépp suñu borom nee na ñi ngi ci jahim ca loolu jahim boobu nga xam ne dañ koy dund ci àdduna muy jahimu biir xol bu ñu deeyee nag yaslawnaha yawma din ca la ñu leen di dugal ci jahim amma julit bi nekkoon ci àjjanay xiiwal ci ci kaw suuf donte ni ma la ko waxee mën nam ci néegu ñax lay dund bu dee lay doog a dugg nag àjjanay xiiwal borom bi subhanahu wa taala ne waa jahim day duñ fa mën a ñàkk a teew jamais kenn du rëcc wa ma hum anha bi ghaibin borom bi nag ne lu lay xamal li nga xam ne moom mooy bisu penc bisu fay ba gannaaw ba lan moo lay xamal la nga xamee ne nii moom mooy bisu fay ba mooy bis boo xamee ne nii benn bakkan du mënal moroomu bakkanam dara ca mbokk aaye bi moo yàq dinay nasaraan dinay yahud dinay lislaam ñàkk ko dégg doomu aadama yi bu doon te ne ñoom ñëpp bokkoon nañu dégg aaye bi ñu bari daan doon ñoo xam ne ñuy sauvé lañu mais seytaan seytaane dafa ñëw ku nekk ci ñoom mu ne la garaawul sëñ diw mi nga yaakaar kotaam yowmal qiyaama xañ nga ci bu ko defee nit ñi teqali ko diw sama yaakaar diw sama yaakaar diw sama yaakaar yowmal qiyaama lu ma fa sëñ diw joxul bëgguma ko yàgg leen dégg loolu mi ngi noonu su ko defee loolu mbokk dafa safaanoog alquran alquran dafa ñoo jàngal ni allaxira benn buur moo fa am benn buur moo fa moo fa am te benn buur rek fa am dara keneen ku dul yàlla booy ñëw yaramu nen ngay def xatta yonent yi alayhimu salaam kuy génn sa sa bàmmeel yaramu nen ngay def ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax ci teggin nee na Ibrahima la ñuy jëkk a wodd naam moo gën Ibrahima donc la ko borom xam-xam yi di firi mooy soo àndeeg sa baay ngeen def yaramu nen sir bi nga jëkk a for ndax da nga koy wodd ab da nga koy jox sa baay da nga koy jox sa baay kon ñépp yaramu nen la ñuy génne. kenn du am dara kenn du sañ dara ku fa am lu mën a doon ci yàlla la jóge moo tax borom bi ne benn bakkan du morom beneen bakkanam dara rasul sallallahu alayhi wasallam mi gënoon ci yonent yi loolu la wax ay yéen waa bani hashim fexe leen musal seen bopp ci sawara mënulu ma leen ci yàlla dara ay fatima bintu muhammad fexeel musal sa bopp ci sawara mënulu ma la ci yàlla ci dara keroogee wala amru yawma izin lillah mbir yépp ci yàlla lay dellu looloo tax ba nga la waay lii nga xam ne ak ram mu am na li nga xam ne mooy ay jéggal am na yërmaane am na waaye bu ko yaakaar ci kenn ku dul sa borom yàlla yàlla dong la lépp loxoom nekk ci moom ca yàlla day képp koo xam ne yaakaar na ko ci muy dëgg yàlla du tas sa yaakaar amma keneen koo yaakaar ci dul yàlla boo demee yowmal qiyama tanewula fa kenn tanewu fa kenn ndax lu tax wala amru yowma izin lillah mbir yépp keroog day dellu ci yàlla jalla wa ala mbokk ñu ngi ñaan sunu borom yàlla bu keroogee yàlla nañu jéggal yërëm ñu xam nañ ne tey ajjuma la nit ñi jot nañoo dégg ab xutba incha allah li ci des ñu góorgóorlu di ko jagleel li nga xam ne nii moom mooy azkaar yi ak ñaan yi ba ba jant bi di so waaw bu ñu delloo ci laaj yi jóge ci internet bi kii day wax ne waaw jigéen bi nga xam ne daa def noppalan nga xam ne moom mën naa toog lu jege ay at du gis règle ku mel nii bu dee ni dañ koo fase ku mel noonu naka lay jàppe idda su dee ne loolu daa am ku mel noonu iddaam ay weer la moom la borom bi di wax lazi walaati yaisna min al mahid id iddaam ay ñetti weer lay doon bu doon te ne nag kenn xamul ban illa moo tax ay réglam ñëwul ku mel noonu un an lay iddawu loolu la borom xam-xam yi wax neuf mois nga xam ne mooy idde ku ku ku ku ëmb ak trois mois ku gisul règle mooy jigéen bi nekk ci digg réglam ñu fase ko après gisatuñu ay réglam dañ ne day toog un an doog a sëy amma nag koo xam ne wóor na la yow yaa def mbir yoo xam ne régal ma mënatuloo koo gis kenn du wax sa jëkkër ne la fi téye cinq ans pour idde bi di jeex kooku bu sa trois mois jotee idde bi day jeex waaw kii moom dafay wax ne moom day dafa yeewu fekk mi ngi ànd ak janaaba léegi nag mu biddanti fa ku mel noonu ndax mën na woor loolee mbokk jotewul ak koor gi dara biddanti ànd ak janaaba jotewul ak sa koor dara da ngay dem sangu daal di julli sa sa fajar continuer sa koor mi ngi noonu même bu doon da ngaa tëdd bëccëg ci biir bëccëg bi digg koor gi nga gént mëni yu génn ci yow di yaa ngi ak janaaba loolu yàqul ci koor gi dara da ngay jóg rek sangu loolu yàqul ci koor gi dara amma nag bu dee yaa def say pexe ba génne ko moom su boobaa bis ba yàqu na te def nga bakkaar boo xam ne nii ah bakkaar bu màgg màgg la kii dafay wax moom mu ne sama grand frère dafa takk soxna léegi nag soxna boobee am doom ndax man man mën naa dem takk sama doomu grand frère loolu sama doomu soxna grand frère moo xam ne sama grand frère juru ko xaw ma ndax ma waxaat ko mu ñu dégg grand frère am moo takk benn soxna soxna bi amoon na benn doom bu jigéen mu ne ndax man mën naa takk doom bu jigéen bi su ko defee sama grand frère bi séyeeg yaay man ma séyeeg doom loolu dara niwu ci loolu dara niwu ci ci mën naa nekk mi ngi noonu bu doon te nag sa grand frère moo jur doom ji loolu moom day xaraam nga sëy ak moom kenn du sëy ak sa jarbaat mi ngi noonu waaw jàpp naa mën nañ mujjee kii rek mu ne moom lan la lislaam wax ci ñiy def bëccëg ala kulli xaal mbokk li ñuy def bëccëg borom xam-xam yi dañu am ixtilaaf ci loolu donte ne ni liñ ci tànn mooy bu dee dañ ko leeral dara newu ci lan mooy bëccëg mooy ñi nga xam ne tey boo ñëwoon ñu ne la siwa bii kat 1000 francs lay jar léegi nag boo bëggee ñu daf koy def bëccëg ngay jox bëccëg cent bëccëg cent mais à la fin day mujj nekk mille deux cent wala mille cinq cent ci gàttal mooy bu may lay jaay lii la booy leb lii la am na lu bari ci borom xam-xam yi dañ ne loolu riba la waaye nag am na ci ñeneen ñoo xam ne ca bokk na ci al Usaymin mi nga xam ne ci jamono yi ñuy dund faatuna rahimahullah waaye ñi ci gën a am maîtrise fiq ci la bokk mu ne loolu buñ ko leeralee dara newu ci li bon daal ñu def ko ci lënt mais bu dee lu ñu leeral la kii day ñëw jënd 1000 francs laa la koy jaayee kii jóge fële damay leb 1200 laa lay lebee ni mu dagane nga jaayee kii 1000 francs jaayee kii 1500 lebele kii 1000 lebele kii 2000 naka noonu benn marchandise mënees na cee am ñaari prix problème bi rek mooy nañ ko leeral loolu daal mooy la nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi wax kon incha allah ñu doy loolu ci internet bi bu dee am na naam naam bismillah naam. bu dee benn allahu akbar boo wax rek day julli bëgg a wax sami allahu liman hamida mu jum na allahu akbar loolu yi di kenn du ko sujuutal sujuut la muy doon mooy koo xam ne dafa def lu ëpp ñaari sunna yu mu yokk loolu la ñuy wax loolu ñu sujuutal waaye benn jum boo jum rek ci benn sunna loolu da ngay gis kenn du ko sujuutal wallahu subhanahu wa taala aalam ah bismillah ah naam naam naam ndax julit am na droit jëfandikoo ndabab chrétien loolee bi charte mooy mu raxas ko bam set duñ la may nga jël ndab bi directement def ci sa lekk waaye ndabub ahlul kitab boo ko jëlee fokk da nga koy raxas bala nga caa def sa lekk boo ko raxasee bam set nag dana dagat nga def ci sa lekk wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ala kulli xaal lii di perte blanche borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf bokk na li ci gën a digg doomu mooy bu dee dafay jógee fa doom di cosaanoo loolu dañ naan moo ngelaw a yem moo ngelaw a yem du yàq la nga du nekkul loo xam ne sobe la waaye nag bu génnee dañuy jàpp ne njàpp mi moom dafa yàqu bu génnee dañuy jàpp ne njàpp mi moom dafa yàqu loolu mooy la gën a digg doomu luñ ca wax borom xam wax nañ ci lu gën a bari lu bari waaye daal lañ ca gën a digg doomu mooy loolu kon bu dee na soxna si moom gis nañu ne avant muy jàpp dem na avant muy julli dem na jàpp na ba nga xamee ni nii nekk na ci biir julleem julli na ba julleem jeex yëgul lenn loo xam ne nii lu génn ci moom la dañ ñaan julli gi moom baax na amma bu dee jëmmi ne am na lu génn ci moom ci perte blanche bi dañ naan loolu yàq na julli gi waaye ndax day dem raxas ko ba mu set loolee borom xam-xam yu bari dañ ne déedéet perte blanche bu jógee fa nga xamee ne ma fa la doom di cosaanoo loolu moo ngelaw a am loolu du sobe yàq na njàppe mi mais du sobe day mel ni rek waa ji nga xam ne dafa jàppoon ba pare ngelaw génn ci moom moo ko ngelaw kenn du ko laabu ngeen baal ma jàngale siq mooy li gën a jafe boo gisee ma koy wax mag ki ma ko laaj magum jëmm la moom demoon na fu ngelaw génne balaa julli day laabu ji ba pare doo ko jàpp gis ngeen waaye moo ko ngelaw du lu ñuy laabu sobee la nag mooy bu génne ci yow yàq na njàpp mi waaye nekkul loolu loolu daal mooy la gën a digg doom la ñuy wax ci perte blanche wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam posé xef ak posé kopp ongol loolu lépp day dugg ci waasila mooy jokk na yonent bi teree ñu jokk karaw noonu la teree ñu jokk karaw yi ay xef waxumaa nag danger yi ci médecin yi wax waaye noonu la ko noonu la ko noonu la araame nga yokk sa karaw bopp noonu la araame nga yokk sa karaw ay xef noonu it lañ lay teree di nga xam ne mooy pose ay ongle yu bokkul ak say ongle bal islam daf ne sa weyi bopp sax bu guddee da nga ko war a dindi am déet kenn amul droit bàyyi say plus de 40 jours ci dindi woo ko nan ngay jëlee nag encore ay wee yoo xam ne mel ne bàyyuma jigéen ñi ba leen gisee comme ay eggal je ne sais pas loolu mbokk da ngay gis ne tubaab bi moo ñu ko fi indil waaye abadan loolu julit jigéen julit du def loolu mbokk wallahu aalam ñu doy loo loolu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain